mbokki Sénégal ku doon laajte Faly Ngoyeng gi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wér gu yaram dama ne nga am jafe-jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne da nga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa boroom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa yaram daal di tëju ba loo ba mu dëgër ngay déposé ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bañ bëgg a dee ñëwal seet si soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi wër ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada seexu yàlla bi mooy dàllinkóor ci wàllu seet moo lay teg la ci kanamam di la wax sa demb sa tey ak li war a ñëw suba dama ne seet moo ci man ci senegal moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne te ay cangatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu bi la ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon acca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi baax a baax di leen ziar di am mbégte kontaan bu a baax Euh, lu ñu war a ñu ñëw fii na tey fii si Albert Royal fekk fi Abba No Stress ndog Albert Royal euh, Abba Albert Royer alors ñu fekk fi Abba No Stress bi nga xamee ni chaque fois ndog yu muy organisé chaque année weer ko bu jot mu fay indi ay xewal ay médicaments ak lu mënti doon li nga xamee ni xale yi nekk fii dinañ ko jëfandikoo alors dañuy bàyyi Abba daal di nuyoo ñu daal di dugg si waxtaan bi salaamaaleykum Abba. Eh, aleykum salaam maa ngi nuyu internautes yi ak téléspectateurs yi seetaan ñëpp di bëgg ci hôpital bi année ñu. tàllal ñu seeni loxo bu ñu ñëwee ñu ubbil ñu ñu dugg jël li nga xam ni peut moom lañ euh, yéene bokk ak xale yi ñu indi ko bokk ak ñoom après ci xol bu rafet ñu ngi sant ñëpp ko di gërëm ñëpp kontaan bu baax waaw. alors est-ce que mën nañ xam bi fa la jógee. la ah, ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ay doom yi banlieue lañ euh, ay mës nañu ay ndaw ba pare ñëw yàlla may ñu ñu am ay doom ak yooyu dañuy xalaat xale yi bu ñu feebaree tey bu ñu nee Aba dañ naan mooy def ñëpp ñuy reetaan am na ñoo xam ni mënuñu reetaan parce que ñu ngi ci hôpital yooyu ak yooyu surtout xale yi nga xam ni xale bu mag boo ci gis rek mu ne la sama doom yow la jàngee wax mais am na ay xale yoo xam ni man la ñu jàngee wax mais ñu ngi fii ci biir lalu hôpital yi donc pourquoi pas ak équipe bi chaque fois da ngay def lu baax dangay ngay génn di def yu kenn dul yëg puis chaque année ci weeru koor comme xam nañu weer la bu ñuy bokk weer la bu bu bari yërmande ñu ne pour pourquoi pas ñu ñëw di seet si xale yi donc yàgg naa foog naa ne mooy xaw ma quatrième xaw ma cinquième édition ñuy sant yàlla di ñaan yàlla mu dem ba ay vingt vingt cinquième ak ay cinquante ak cent. alors quatrième édition du ay faux. ça veut dire que am na maanaam euh, si wàllu financier am nga noo koy gérer en nan ba ñu nekk si ginnaaw. waaw mais ñu bëri rek euh, parce que lii lépp ñëpp la ñi fi ñëw nii ñëpp ku ci nekk jël nga sa dërëm def ci am na ay am na ay li ay nit ñu baax ñoo xam dañuy dégg ne yaa ngi def action yi ñu indi seen xaalis jox la mën naa ci cité benn nit ba ñaar comme benn Papa Doro Gaye Doro jàpp na ci daaw jàppaat ci ren jàpp na ci bu baax bi ñu ñëw léegi ci yoon bi dafa am benn femme bu ñu dab bëggul ñu wax turam daf ñu jox ay enveloppe pour ordonnance yi ñu fi fekk ñu mën ko jënd c'est extraordinaire tey bi ñu ñëwee ba yegg si am na benn booy boo xam ne sama frère la moo indi joué yëla ci kaw donc du benn nit du ñaari nit ay nit la yu bëree bëri parce que parce que lii c'est un projet bu ànd ak programme joxe ay dons fii après suba ñu dem euh, fee prison ba ginnaaw suba ñu dem donc benn nit munu ko ñaan nit munu ko ñëpp lañuy ñuy tàllal suñu loxo et ba tey <laughs> gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi ci jàpp bu baax a baax. waaw euh, mais parce que tamit ñun dañoo judd ci banlieue bi mu metti lool euh, ñu am papa am yaay te seen loxo doon woon jot seen ginnaaw ñuy feebar wala ñuy gis suñu ay rakk ñuy feebar ñu daan gis situation bi ni muy demee donc tey boo juddoo ba yàlla dimbali la pas nga am ko mais nga am ay nit ñu ko am wala nga am benn image boo xam ne mën nga def lu mel ni genre dafay baax nit nga fàttaliku. Euh, noo juddoo fàttaliku fi nga juddoo fàttaliku sa enfance ak yooyu yëpp dafay am solo donc fierté lay nekk pour ñun dañ ciy bëgg buñ koy def parce que dañuy xam ni que nii ñu ngi dimbali xale yi et que sax du action bi mais le fait que nga dugg ci ay salle bu ñu àndee ngeen gis am naay xale yoo xam ni bu ñu gisee Aba dañuy jug. toog dañu leen fekkoon ñu tëdd jug toog am na xale yoo xam ne bi passé daaw maa leen jox ñu bëri ñu lekk parce que dañ bañ a lekk bu ñu gisee abaa nga jox la ñu lekk dañ koy jël donc loolu fierté lay def ñun et puis dañuy la mm, sant yàlla dañ koy def nii defoon nañ ko defaat ko après dañuy dem. yëmbal dem rond point Ouest dem université après dem fi nga xam ni moom mooy ca euh, fële ca prison bi donc noonu la waaw waaw donc noonu lañ ko defee chaque année buñ ko defee parce que lii moom lii rek nga mën a def te yàlla tax parce que danga nga koy def te xalaatoo ci dara luñ la ci jox ak li nga ci am ak yëpp da nga koy def te yàlla tax du nekkul loo roof di xaar suba loo ci génne ak yooyu mm-hmm. donc fierté rek leen ci mën a am ak contentement romb nit woor ba ngoon nga jox ko mu ndogu mm-hmm. loolu waxuma sax nga yëg nga bañ ko yëg mais xeetu yaaba gi nekk ci loolu loolu kese lañ ci wër quoi kon ñun li ñu tooñ yàlla daa bari dañuy profité ci koor <laughs> di jégalu merci beaucoup. waaw parce que ay lié la yu sensible mm-hmm. tey bu ñu nee hôpital ne surtout hôpital yi nga xam ni ay xale yu ndaw fi nekk tey ku ci ne ñun am nga doom bu la nee sama bopp day metti wala sama bëñ day metti wala am na lu ko dar rek yow da nga koy tiim di jooy donc tey nga xalaat parent bi nga xam ni doom dafa nekk ci hôpital bi ay weeri weer muy fanaan ak moom di yeew moom donc loolu boo xalaatu loolu doo nit <laughs> nit am na mais parfois il faut que ñuy ci hôpitaux yi di ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk alors tey bu ñu nee hôpital mooy loolu mooy fu xale yi nekk xam nga xale yi c'est simple c'est sensible ak yooyu tey ñu ne prison bi prison famille nga dem fekk fa sa sœur fekk fa sa soxna fekk fa sa yaay wala fekk fa koo xam ne sa ami d'enfance la ñi nga fay gis ñëpp ay femme lañ mu ñu mun ñu romb femme te quand de la femme on parle de la vie donc tey ay place la yoo xam ni boo fa demee rek da nga fay fekk suñu borom donc da nga fay dem loolu rek mooy loolu suñu ay idée loolu mooy projet bi ñu dem foo xam ni peut ñooñu dañuy soxla di ñu gis parce que bu ñu nekkee dañuy dem tamit prison bi li fa gën wala mooy spectacle bi ñu fay def mhm. tey prison bi bu ñu yóbboo seen dons sax ñoom duñ xool dons ñu ngi laajte ana toch waa ana ñamaxit ana ana kële ana kële donc spectacle boobu ñu leen indil ñun moo gën a fort ci ñun que dons yi ñu yóbbu waaw waaw non stress help waaw. Mhm. waaw ñi ñëpp di reetaan ñun suñu objectif mooy dañu bëgg ñëpp di reetaan maam ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko mën ñoo ñuy fekk ci place yi ñuy organiser spectacle yi ñi nga xam ne ñoom mënuñu ko te nekk ci hôpitaux yi dañ leen fay fekk ak li ñuy soxla tey jii eh, ki nga xam ne dafa feebar tëdd ci lal hôpital bi mënoo ko fexe ba mu reetaan tant que doo ko faj ba mu jug donc moo tax ñuy jéem indi lépp loo xam ni xalaat nañ ñi peut ak yàlla bu ci defee loxoom genre dinañ jug ñu fexe ba ñëpp reetaan parce que ku wér reetaan ku feebar boo wéree reetaan donc kay xam yow tamit da ngaa wér boo ñu fekkee ci place yi nga xam ne dañ fay woote boo ñëwee tamit reetaan dañu bëgg ñun suñu objectif mooy ñëpp reetaan no stress for everybody waaw waaw waaw am na ñu yor nag ñoo xam ne ñoom mënuñoo ñëw mais dañuy yóbbante ne ñun ñu leen indi seen kom koom en tout daal ñu ngi woo ñëpp daal lii daal ay action la yu nga xam ni tey ku ci nekk ci ñun ci bi nga nekkee di wér péng nga war a mën a préparer sa bopp ci ëllëg boo feebaree bi nga nekkee en vie ci nga war a mën a préparer sa bopp pour ëllëg boo faatoo ci ngay jaamoo yàlla loo xam ni suba boo demee yëmal xiyaam moom nga fay fekk dañuy ñaan yàlla yàlla na yéex parce que man bëgg maa teel a dee donc loolu la donc li ngay def nii yëpp c'est pour ta famille aussi tamit ñun am nañ ay doom xamuñu suba lan mooy xew yàlla rek moo xam yàlla moo sàkk ay jaamam moo xam lan lay def ci ñoom ak lan la nam ci ñoom ñaan yàlla mu sàmm njaboot yëpp sàmm ñëpp objectif beeg projet yëpp mooy ñëpp nekk ci jàmm yàlla nekk yàlla ñëpp nekk ci jàmm yéen ñi am te koy mën de temps en temps da leen ñëw ci hôpitaux yi ak ci prison yi surtout armée yi di dem di xool lan moo fa nekk foofu moom foog naa ni waaye ju am na xaalis te amu fu ma ko def foofu amul foofu waaw foofu moom boo demee di nga am leen loo fa def quoi. jàmm ak salaam ci réew mi yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am salaam ki nga xam ni moo gën ci moom mu yor réew mi gën ci ñun yàlla na ko yàlla jox réew mi réew mi moom mm, benn nigérien mënu ko jiite benn keneen mënu ko jiite ab Sénégalais rek moo ko mën a jiite donc nañu ñaan yàlla yàlla sàmm ñu ba dimanche bu ñu xëyee lundi activités yi continuer waat ba pare ñu amaat réew mi nga xam moom a tax ñu a def li yëpp parce que am na nu mu doon demee li yëpp duñu bi nga xam ne mooy jiite bu ñëwee moom tamit mu xam dañ ko wóoloon ba dénk ko mu xool li gën ci réew mi mu daal di koy def ci ñoom jaa ngeen jëf jaajëf waaw ah ci réew mi. <laughs> asalaamaaleykum euh, dal leen ak jàmm ci Albert Royer donc dalaat leen jàmm sax ci seen kër parce que Albert waaye moom xaw yàgg nañ koo xamee Abba je pense que quatrième édition c'est pas du du faux donc moi je me présente euh, madame Ngom lañ may wax Ndeye Astou Ndiaye maa fi teewal directrice donc euh, maa ngi lay yóot euh, kàddu nuyoo borom kër gi ak di la remercier itam ndax comme la ñu wax rek quatrième fois du ay faux donc te ba ngay ñëw indaale ak soxla xale yi. Euh, ndax jouet ñi ngi ci lekk mi ngi fi mais surtout garab te gëm naa ni moom euh, Sénégal ni mu demee am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te dañuy soxla surtout yenn saa ñu leen di accompagner donc euh, ñu ngi leen di remercier bu baax a baax et dire aussi c'est pas une première fois parce que boo duggee ci biir hôpital bi di ngay gis ay chaises yoo xam ne ay bon yoo xam ne def nañ ci xippil xool a abas no stress donc je pense que il y trois ans de cela ñu ngi fi ba léegi les gens l'utilisent donc euh, ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que nekk na don xam ne au moins képp kuy ñëw Albert waaye di nga ci mën a profité donc juste vous remercier davantage euh, di la ñaanal yàlla li nga mën ren da nga ko mënaat ay at yu bëri suñu borom ful ko ful ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw parce que maa ngi ab j'ai bien aimé votre slogan euh, souriez vous m'avez mm-hmm. loolu moom ça veut beaucoup dire donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di leen di remercier bu baax te nay xalaat di di leen di xaar nag ay ati at mu nekk benn kii boo xam ne convention wul benn partenariat boo xam ne du yom fii donc comme li may waxaat rek di leen jaajëfal bu baax et dire que Aba no stress son équipe à Albert Royer ci kanam merci beaucoup alors waaw ñun sunu sunu sunu sunu sunu sunu kii du lenn lu bëgg ndax euh, ki def maanaam xaalisam la ci njëkk def avant kenn ku ci wuy maanaam moom toogul rek naan gars yi ñoo leen jàpp ci da ciy def xaalisam ba pare ne nit ñi kaay leen ngeen kaay leen maanaam ni koo bëgg a dimbali ngay def sa xaalis ba pare mu gis ko ni xam kii def na ba pare moom mu leer ne yéen mu leer ne dara manqué wul na leen ku ci a jàpp ñëw leen jàpp ci. ndax def ma ko pour man def ma ko pour am ci benn revenu dama koo def pour dimbali xale yi ndax tey jii di nga def ba defar koo xamul loolu nga def ba def def ci sa mbokk doo doo ko yëg ndax Sénégal fa xat ñëpp ay mbokk lañ boo xoolee Sénégal réew mi ñëpp ay mbokk lañ foo dugg di nga fekk koo xam ni yéen bokk ngeen dara waaw c'est ça. te te fu ñu mën dem ci loolu loolu la ñuy dem muy prison yeeg muy muy muy muy yëmbal ak muy fu ne. Mhm. foo dem di nga fa fekk kenn koo xam ne bokk ngeen dara ndax réew mi ñëpp bokk. voilà mhm. naa euh, man nag ren nag wax dëgg fa yàlla bëgguma wax chiffre d'affaires bu mu ci def ndax. sama ma def na ci 6 millions. ndax sama sama sama sama avocat moo ne ma yii jaruma koy tudd. may sant bu baax a baax partenaires yi xam ne jàppal nañ ma ci. Mhm. partenaires yi bëri nañ ren. ñëpp jàpp nañ ci. au royal. jàpp nañ ci samay partenaire lañu óor óor non non samay partenaire lañ bëri nañ partenaires yi bëri nañ fi maa ngi leen di sant leen gërëm te man xeeb naa 6 millions yi ci def. 5 ans 6 6 xeeb naa ko trop jërëjëf ba tax nag déwén maa ngi ñaan ku ci mën a jàpp. na jàpp ndax ren ren nu ko bëgg def au minimum minimum 13 millions minimum. ndax bëgg naa déwén bu may bu may ñibbi xale bu na ma yëkkati 1 million teg sa loxo wala 500000 minimum. tos vous avez la parole. <laughs> yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na waaw vraiment mu nekk acte boo xamante ni moom ñëpp dañ koy kontaan lu ah parce que social moom yaakaar naa sénégalais bu ci nekk war nga ko mën a def ni tey jii nii nit ñi dañ koy commencé tan comme ni mu ko waxee léegi léegi nii rek am na xale yoo xamante ni turam dañuy jàngee wax abaa xam nga daa neex wax abaa affaire yooyu noonu waaw tey baax ñooñu liggéey ci sa àdduna mu am benn bis boo xamante sax di nga gertuwaat ñëwaat ci ñoom parce que ni ko ndaam waxee yaakaar naa ni wax nañ lépp Sénégal benn famille la lu fi waaye def jàppal ni sa bopp nga ko defal mm. mais lii tamit message la bu am solo message la bu am solo pour ñeneen ñi nga xamante ni am na ñu nekk ci réew mi ñoo xam ñoo ëpp abaa xaay suuf ñoo ko ëpp doole waaw je pense que lii nii message la pour ñooñu tey ku nekk bu defee loolu yaakaar naa ni du doon Albert Royer rek lañ ko war a def bu kii def feneen keneen def feneen keneen def feneen léegi-léegi ñu gis réew moo xamante ne réewum social la donte ñëpp nag mënuñu social waaw mais nañ ñi ñi def seen xam ne bis bii nii bis la boo xamante ne loo def yàlla dala koy fula muy weeru koor ak yooyu noonu yaa ngi comprendre voilà te ku ne da ngay am doom affaire la loo xamante a man man man man man man maay compté xaalis man def ma dara de mais man maay li alal mënu ko mais xol la koy def. Mm, waaw waaw li alal mënu mënu ko xol koy def. moo moo tax may may jël sama alal ak sama xol lépp def ci. waaw maa ngi ñaan yàlla Ousmane mu ngi lu am solo moom xale la day yëg xale yi. xam nga ay moroomam la fekk. kon bu ko defee. ñu waajal bis yi rek ah. waaw élection yi waaw jeunesse bi moom li leen di mooy seen i carte ñoom ñoo ko moom mhm. ak lu mënti xew Sénégal moom ñu Sénégal la yaakaar naan bis bi bokk na bis bu am solo ci maanaam ci ci ci ci Sénégal Sénégal bu ci nekk jour élection bokk na ci bis gën a am solo ko ci am carte électeur na nga teel a yeew mhm. dem voteel ki nga bëgg a voteel mhm. ku yàlla jox réew mi nga xam ne ñun Sénégal mhm. ñoo jox suñu réew doo doon suñu président bëgg féete ñu kaw ak koo mënti doon peuple bi mooy ki la désigné nga xool li peuple bëgg nga nekk ci xool au fin fond du Sénégal régions yi nga xam ñoo gën a reculé xam ni Sénégal yemul Dakar kase Sénégal du Thiès kase du Saint-Louis du Diamniadio ñëpp la nga dem xool ñi ci biir a biir ñi seen loxo jotu seen ginnaaw ñu des suñu kéemtalaay kàttan parce que yaakaar naa ne du réew mu naqaree defar quoi franchement parler bu ñu neex a jafar la ki ko yàlla jox yàlla na ko yàlla jox yan ko ko yan bu oyof ci moom mu diriger ko ni mu ko war a diriger mu doon président bi gën ci président yi ñu am ci àdduna ñeneen ñi ko yàlla joxul ñu encouragé ko opposé tey critiqué ndànk topp ci ginnaawam ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal Sénégal jëm kanam jërëjëf am loo xamante ne mënu ma ko bañ a wax yow mi nga xamante ne dangaa tëlee yow mi nga xamante ne boo tiimee sa soxna doo ko mënal dara yow mi nga xamante ne boo nekkee sa soxna guddi da ngay jaaxle lool ba doo sax yàkkamti guddi daal di jot dama ne wool soxna aadam yi nga xamante ne mooy seexu yàlla bi di mu jox la ci produit yi nga xamante ne boo koy naan di yëg sa bopp loolu nag mooy neexal kër gi loolu mooy neexal sa digganteeg sa jabar produit yi amul benn efe secondaire nag ma ne ñamal rek boo ko ñamee billaahi di nga xam ne soxna aadam mooy gàllinkoor képp koo xamante nag bëgg nga ci woowal gaaw soxna aada seexu yàlla bi ci ñaari numéro téléphone yi muy 77 216 39 69 wala 78 337 yoo ko woowee amul intermédiaire da nga koy jot directement su ko defee nga la di koy wax say soxla mu daal di la koy lijjantil ci nu mën a gën a gaawee dama wool soxna aada seexu yàlla bi wax ko sa soxla mu lijjanti la ci nu mu gën a gaawee kii mooy soxna aada seexu yàlla bi dàllinkoor bi moo mën moo ëpp doole te moo gën a gaaw